junni ak juróomi téeméer touriste ñoo wàcc ci gaal gi ñu duppee Jidé Dam bokk ci navire yi gën rëy ci àdduna bi. ok maa ngi am mbégte tey donc le 11 décembre 2023 jour bu am solo la ci Sénégal parce que ñu ngi comptabiliser 22 navires donc euh, croisière yoo xam dañuy indi rek ay touristes ñëw visiter suñu réew demaat ñu ngi am 22 navires. daaw ñaari gaal croisière rek ñoo fi amoon avant boobu amuñu woon croisière depuis 2019. ci touriste yooyu lee ñi ci gën a bari ay retraité lañu moo tax ma Mahawa Diouf di xalaat ni rek dañ leen fi war a téye diir bu yàgg su ko defee ñu mën a yokk suñu doole touristique. ndax ñoom population yi fi ñëw population yi am pouvoir d'achat la ba pare retraité am jot donc fekk ñu ngi leen di occuper dañuy toog di dépenser. loolu nag day tax lii tax liggéeyu liggéeyu ASPT mooy accueil bi yemb mooy gis ngeen suñu signaar yu rafet yi teeru leen tey mais accueil bi en général ci esprit bi mu doon eh, esprit bu ouvert. Sénégal comme réew Afrique yu bari yàlla da leen di jagleel ay ressources yi attiré touristes yi. ci kaw analyse boobu la Mountaga Sy xalaat ni rekk promotion touristique daa war a bokk ci plan POO bu Ndakaaru. loolu moo tax promotion touristique dafa war a bokk léegi ci business plan au port de Dakar. Hmm. te gaal gi ni mu ñëwee fii yàqul dara ci suñu activité économique. teguwul tardelul gaal yi yëpp ceeb tardelul gaal yi yëpp sukkër euh, tardewul gaal yi yëpp yoo xam ne ñooy war a nekk suñu industrie. donc port am na kattan gu bees goo xam ne war nañu mën a jox possibilité ñu accosté. lëkkaloo ministère di tourisme ak port autonome du Dakar moo fi indi gaal gilee directeur poor bi moo ngi xamle ni rekk port autonome du Dakar moo ngi progressé bu baax ndax li fi am lu rëy la te day yokk koom-koomu réew mi